allo monsieur le juge si allo monsieur le juge waaw kooku man la Farba Ngom géwélu Macky Sall ah yow yaa atte atte bii de sëñ bi ku la jox sama numéro mane amul ku la ma jox sama numéro ak ku la joxul sama man numéro bu mu bugg dama koy am yaa atte affaire Sonko bi di ko leeral sëñ bi aw ma dara lu may wax ak yow ci wàllu atte ak bañ atte ah yo danga ngaa defe ne da ngaa defe ne yow yaa ñu yow yaa ñu gën a jub yow loolu nga foog may wax ngay att att bii euh, di leeral di wax naan Sonko am na autorisation war nañ ko dugalaat ci kii ak lii ak laa loolu yaa def <laughs> yow laay waxal. sëñ bi bu fekkente ni amuloo dara loo expliqué damay coupé de ah ñeme nga ma coupé yow galaat nga di ma coupé waa léegi lu tax nga leeral affaire yi yow gisoo affaire Sonko c'est la justice à part et alors nga bugg nekk yow di def loo xamante ni bi ti fait la justice de juste sëñ bi man awma lu may wax ak yow ci wàllu justice sama liggéey awma lenn loo xamante ni dinaa ci expliquer ak yow d'accord su fekkente ni da nga ma soxla eh, bëgg a waxtaan ak man ak looy wax man waxal ak man lépp ba mu des lu jëm ci wàllu sama liggéey je sais ce que je fais sama liggéey duma ci discuter ak koo xamante ni xamul dara ci wàllu liggéey waaw eh, ka xamul dara ci wàllu liggéey bi léegi foofu ngay lakkatu ay koo xam ni xamul dara ci wàllu liggéey bi duma waxtaan ak moom yàq nga lépp waay yàq nga lépp yow billaay di nga yeex ñëw Dakar boo yeboo nga xam ni kaasa maas kee dugg ak fu fu mu rukkee foofu lañ la yob doo laal Dakar de Dakaru njaay seesu nandite yi ñoo fay ñëw de siitu naan di sayile yow suma gàmmu nga waaye séeréer bu yow daal man sow sa séeréer man buñ ma waxee séeréer muusul maa ngi koy soog a gem maa ngi koy soog a gem parce que munoon nga ñëw ndakaaru njaay munoon nga am lu nekk nga nekk foofu naan de ngay jaay ay jub ay yow doo siis naan de billaay doo siis naan maa la ko bu ma la ko waxee gem dool mos ndakaaru njaay sa oto yu bon yi caam ay eh, wax muy atte di jéem a jub jublu yaa ca continuel ci jub bi continuel foofu continuel foofu doo am dara doo ñëw Ndakaar de maa ko wax dégg nga maa coupé kon lu may wax ni yëpp mujj ko dégg coupé